xam naa dinañu dem ni gàmmu nga moom meeting politique la ah ci la bokk di ci la bokk ci la bokk maa ne ko wax yow mii xam nga ci dara yow Cheikh Diop ngunte mii sonal nañ la xaw nga dem laaxira waaw <laughs> waaw moo tax kuy tiitaru na tiitaru waaye bi élection yi ñëw fukki nit ak ñaar yónni nañ leen ci man façon lu ne lu ne lu ne lu ne wax nañ ko lu ne mais changé wul dara ci man waaw changé wul dara ci man mu ngi noonu di ma dégg waaw ba tax na kon nag tabaarakallaahu ñu sant yàlla rek te jàpp sunu kilifa jàpp sunu tarbiya te ñu bàyyante xel te ñu ñaanalante sutura yàlla ak tawfiqam incha allah li ma wax sànqit moom lay yóbbante Mouhamad Mbacke Abdoul Wadoud bii ndax itam lu ñu yéene sunu bopp rek yéene nañ leen ko te loo taxoon mag yow góor gi boole ñu la mu ñu boole te gis nga politique yi buñ leen tax euh, toppee li ñu yàq day bare ndax li ñu lay wan ak fa ñu jëm du nekk benn waaw moo tax foog ñu bàyyi leen xel te seet nu ñuy tërale te sunu mbokk gii nag kenn bañ ci xaj waaw maa koy wax Cheikh Mbeng bii fekk doomu Kara ñëw seetsi ko mujj na téléphoné sax ba dafaal ne ko nee leen sëriñ Moustapha dama ko nam ndax gëj naa ko gis gëj naa ko dégg bu ma mayoon sax xam naa gàmm gi mën naa am dafa xat waaye kon balaa gàmmu gi diggante àllarba ak bu ma fi mënee recevoir ma ni ñaar yëpp dafa xat waaye bis bu yaatoo ñu mën a gisee waxtaan dinañu waxtaan waaye li ma koy njëkk ñaan fii laa ko koy ñaane mooy détail yiñ koy dugguloo ak yu amul njariñ yiñ koy yi muy topp mu bàyyi ko parce kilifa dafa am fooy toll doo def sa bopp comédien surtout boo amee ñu la yaakaar ndax benn nit dafa ñëw laaj ma mu ngi toog ci mbooloo mi ni ma dama dégg ci waxtaanu Serigne Kara mu ni da ko yónnee benn lettre boo xam ne lettre bi page bi dafa vide kenn bindu ca dara mais moom li nga bëggoon a wax moom xam na ko ma doon la laaj nag affaire lettre boobu nu mu demee ma ni ko ah te sëriñ Kara moom mu wax la nu mu demee waaw ah, ko parce que man yëguma ko mu tax kilifa day fexe ba sàmm personnalité bañ a wax lu muy maye boppam waaw léppam mu teg ko ci teguwaay te bañ jaawale boppam ak waa mbett bi loolu ci li ma koy ñaan la bokk duma ko wax ci ruq fii laa koy waxe ndax may naa ko moom it lu mu gis ci man lu ko neexul bu ko neexee mu taxaw ci public wax ko ñoo bokk lépp waaw sama doomu tànt la ñu bari sax xamuñu ko ci moom waaw ba tax na ko nag kilifa yi ci des yëpp nag lay ñaan loolu dañu bàyyi kaf yi bàyyi yu ñàkk fayda yi bàyyi topp politique yi ñu di ñu foye waaw waaw lu ma leen wax rekk xam naa lan lu ma leen wax rekk xam naa lan te baat boobu góor gi tudd ci sëriñ Abdou Lahad te wax ni kilifa gu neex a àndal la xelam dafa rafet ah te wu jëwul ñaar yooyu dafa am solo waaye bi ëpp doole mooy baat bi mu waxoon sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdou Lahad ni ko sëriñ bi mu ne ko am ah, mu ne ko ku amatul foo wéeru ba max la yomb waaw moo tax nag kuy wéeru lu ci borom wayi wax day seeti borom gannaaw dayo ya moo tax doo wéeru ci n'importe où wala ci n'importe qui ku nekk seetal ku la àttan bay wéeru nga wéeru ci kon nag tilkum hiya al kalimaat wa tilkum al wasaaya hmm? wa tilkum al taalimaat wa tilkum al irshaadaat waaw ku mu diis ci yow nga baal ñu ñi ko mën jariñoo jariñoo ko guddi na ba noppi xanaa ba suba rekk ci njaboot bi kilifa yi bëgg a yeewi ku ñu yeewi leen waaye itam bu subaa ñu war a jël parole yépp ci kilifa yi ñu jox leen ñu jël parole ndax kilifa yu am solo rek ñoo fi des bu ko defee ñu jox Cheikh Ahmed Tijani Saara pour que mu liir liste bi waaye ñu nuyu te sargal soxna jaara di fi toog di soxna sëriñ Abdou Mbàkke bu sëriñ Baara jóge Tuuba ànd ak mbokkam yaay bile ak wëllëreem yi mu daan àndal mu ànd ak ñoom waaw ñoom nday xawaat ñi ci des ñëpp ak njaboot gu ndaw gi waaw wa tabaarakallaahu ci ñàkk wujje gi ma tudd moo tax bu gàmmu jotee sëriñ Abdu ne ko jógal demal te say bokk waaw mu ñëw ànd ak soxna ñu ñëw gàmm toog ba yëf ya sotti mu soog a tàggoo jël bagage am dellu Tuuba Mouhamad Abdul Abdul Wadud Mouhamad Mbacke Abdul Wadud mu ngi may ñaan pour ma ñëw Tuuba wax may ni ma lu Serigne Cheikh daan def ci diggante ak ñi mu am lanteel jot na ci yow nga def la même chose waaye li ma tudd léegi bi ñuy tudd gàmmu course bi mooy am na koo xam ni sañul jóg mukk te kilifaam joxu ko ordre ba noppi ñoom lu ne xam nañu kañ la bu jotee ñu di jox la ishaara bi nga dem def ko moo tax góor gi rek lay déglu mu ni ma fii fii fii ma jóg dem def ko insha allah waaw ba tax na kon nag du tere kóllëre gi ñu di ko continuer sunu diggante di demlante di dikkalante lu ci rafet rek rafet incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi wa ala millati rasulu manhajil qadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kaddu yi ci gungeb gàmm gi Eh, dama koy eh, adressé njaboot gi ñi nga xamante ne bi may seen jëwriñ ndax li ñu may nettali nii moom la Serigne Moustapha wax bu Moustarchidine ci gàmm gi loolu ci ni ma ko nettalee doo doonul loo xamante ni bi lu jar kenn di ko kenn di ko mettitlu wala yu demee noonu déedéet dama daan wax njaboot gi rek te foofu xam ngeen ni ay mbokk ak i soppe ñoo fa nekk muy Moustarchidine wala Moustarchidat bu dee ci boppam ni ko jiite Euh, moom ñi mu bokk ñëpp foofu ay soppee fa nekk wax dëgg yàlla ki mbokk moo tax nag bëgguma ku dégg ay waxam ba ku wax bu nekk nanga koy déggee waaw xam a kilifa bu waxee ba nag te xamoo fu mu teg wax ji eh, ak euh, noo koy interpréter man dama bëgg kuy interpréter waxuma moom waaye man sama ku nekk booy interpréter wax interpréter ko positivement bañ ko interpréter négativement te interprétation bi sax jarul véhiculer ko jaru ko jarul véhicule kilifa du wax ba noppi man de ko loolu waxoon naa ko fi ne woon naa kilifa bu waxee ba noppi waaw fa mu teg ay waxam bàyyil ko ko fa tegal ko fa bu ko jéem a tegal feneen waaw li ma leen bëgg a leeral daal mooy ay jàmbur sax xam nga bu fekkoon dañ ñoo tooñ dunu fayu dañuy baale waaw te lii gisuma ci ak tooñ waaw ak kilifa bu jóg di wax ah te nga yàgg dégg muy wax itam te ngeen yàgg dégg li may wax ci moom ah ngeen yàgg dégg li may wax ci moom yàgg yàgg ngeen a dégg may wax ñoom Badara ak ñoom Malick naan leen waaw sëñ bi war naa ñëw defal benn conférence waa diwaan waaw ndax ci temps savant nangam ak ci nangam te loolu dëgg la waxuma ko pour bëgg lu ko neex waaye njaboot gi daal damaa bëggoon ngeen xam ne foofu moom <laughs> aw yiw rek lañ ñu fa ëmbal loolu bu ngeen ko xamee rek mu baax waaw bu ma gis kenn kuy jéem a wut benn réaction bu jëm ci waxi kilifa rawante naag moom loolu daal laa leen di dénk yéen njaboot gi